وخذ له من خدم سرورا يا واهبا وحبا للبرورا يا ربنا صل صلاة مسقيا كل صلاة مع سلام مرضيا على الذي أرديت سنينا مجاهدا محتربا سنينا سيدنا محمد والآله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 di ñaanal Serigne Mouhamadinil Mountakha Bachir suñ boroomu defal ko fan wu gudd ak wér gu yaram waxtaan wi ki nga xam ne moo koy taxawee di ko def moom mooy Serigne Khalil Mbacke mu sëñ Moustapha Xabsa euh, di doom ci soxna moom yi mu sëñ Saleh moom moo ñuy taxaweel jataay bi yaakaar naa sëñ Khalil daanaka du jar ñuy ndax yaakaar naa képp ku yëngatu ci wàllu xam-xam ci dëkk bi rek. ak lu aju ci yoonu murit jàpp naa ne réeré woo jëmm ci nga xam ne moom la ñu tuddee sëñ Xalil xam bu ak ci ay bindam ak yu baree bari yàlla na yàlla sàmm ko ci dëgëral ko defee tomb bi nga xam ne moom la sëriñ Xalil fas yéene waxtaane ak ñun mooy lu ñuy tuddee ataassub aljaahili fi manzour al islam maanaam lu ñuy tuddee ak parparloo maanaam moom la tuddee fanatisme ci ak réer ak réer boo xam ne daa askanoo ci ak loolu naka la ko lislaam gisee jullit yi bokki taalib leen di nuyu di leen ziyaar ci weeru ramadaanu tedd wi ci <coughs> barab bu tedd bi di jiital ci nuyoo bi euh, alxalifatul am di taifa al muridiya sëriñ di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko te àggale mboolem ay sembam di nuyu sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Saalix bi xalifaam di ko ñaanal loolu ñuy ñaanal sëriñ Muntaxa te mooy yàgg fi ak mboolem li nga xam ne semb na ko ci ay liggéey yàlla àggaleel ko di nuyu sëriñ Murtada mi nga xam ne moo nekk imaamu jumaa ji moom itam di ko ñaanal li ñuy ñaanal kilifa yooyu ci liggéey yi nga xam ne sémb ne ko fii ak mboolem ñi mu ko àndal yàlla àggaleel leen ko di nuyu sëriñ Saalihu Cuun mi nga xam ne moo fi teewal mboolem njabootuk sëriñ Béthio mi nga xamee ne liggéey jumaa ji ci moom la jaaroon ba yàlla sottal ko moom it ñi ngi koy ndokkeel ci sottik jumaa ji waaye di ko nuyu di ko yóbbanti ci ay nuyoo ci mboolem njabootu sëriñ Béthio gépp di jokk li nga xam ne moo doxoon suñu digganteeg moom ci booleb sëriñ bi ñaan yàlla yokk ay leeram su loolu jàllee mu mel ni sëriñ Abo Kébé ni mu sàkkoo woon ci nun mawdon bi ni mu ko tëggee mooy ni ko sëriñ Madiama waxi léegi rek mooy attansub al yi min manzuril islaam mooy par parloo goo xam ne day mel ne dafa dege ci ak ñàkk xam nan la ko lislaam gise ku ne xam ne na loolu li muy yàq jamono yi ñu toll bari na incha allah ñu fas ko yéene seddale ci ñeenti tomb tomb bu njëkk bi mooy par parloo euh, li nga xam ne mooy dustóor bi nga xam ne moom mooy dustóorul islaam te mooy marji bi njëkk muy alxuraan nan la gisee parparloo bi ko ñaareel mooy yonent bi nga xam ne moo fi moom la yàlla wàcc ci moom alxuraan mu leeral ko am njàngaleem leeral la ay leeralam moom it nu mu gisee parparloo <coughs> Cheikh Ahmadul Xadim mi nga xam ne moom it moo leeral njàngaleem yonent bi leeral alxuraan ci ay jëf moom itam nu mu gisee parparloo daañu wax itam par parloo jeexital yi nga xam ne dana ko def ci société yi ak ci réew yi ci ak àdduna bi yépp daañu wax itam par parloo nu ñuy def ba jële ko fi maanaam luy saafaraam incha allah bu fekkee waxtu wi yaatu na yooyu mooy ñeenti poñ yi nga xam ne incha allah daañu ci leeral benn bu nekk li ci waxtu yi may incha allah suñu delloo ci alxuraan ñu gis ne parparloo lu mu bañ la waaye bala ñoo dugg ci alxuraan sax ñu ñu wax ne parparloo dana dana séddli ko ay xeet yu bari da gis kuy parparloo ci ne man réew mi laa bokk ñoo bokk réew mi nga xam ne keneen ku bokkul ci réew mi kii koy gën a bokkal mooy diggante réew réew waaye suñ suñ duggee ba ci biir réew mi ci diine ji da gis diggante diine ak diine par parloo da ci am waaye boo duggee ba ci biir diine ji da gis diggante waaso ak waaso par parloo da ci am ba ci sax diine yi diggante ngir ak ngiir wala diggante tarixa ak tarixa incha allah yooyu yëpp ku ci nekk danañ ci indi li ci waxtu yu maye waaye suñu delloo ci alquran ñu gis suñu borom tabaraka wa taala muy wax ne inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi alsinatikum wa alwaanikum inna fi zalika la ayatin lil aalamin muy wax ni mu bind nit ki te mooy da ko bind mu wuute ak yeneen moroomam ci ay ay melokaan ñii xees ñii ñuul ñii jaune ñii gàtt ñii njool ñii seeni bët sew <clears throat> kenn ku nekk ak ni la yàlla bind waaye itam ci wax yi maanaam làmmiñ yi ni mu wute ni mu wutee kenn ku nekk ak euh, làng bi ngay waxe yooyu nag suñ ko booleek kenn ku nekk ak nim la bind ci jikko ak gisiin qul kullun yaamalu ala shakilatihi <clears throat> boole gi itam kenn ku nekk la nga gis ak na nga gëmee loola mooy da ngay am fierté ci loolu jàpp ne loolu mooy noonu kullu xisbin bi ma la dayhim farihun waaye suñu borom itam bi mu bindee nit noonu ak wuute gi ak ni ñu mel mu xam xamle nag ne kenn ku nekk ak noo mën a gisee ak noo mën a jàppe nattukaay bi benn la te mooy ragal yàlla ci li ñuy gënante يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم mu xamle ne kon ànd ak wuuteeg doomu aadama ni ñuy wuutee ak ni ñu uh, mel waaye la ñuy gënante mooy ragal yàlla moom suñu boroom mu tere nit di reetaan moroomum nitam ci kaw ni ma waxoon ci ginnaaw nga xam ne bu ngeen bokkul ay gis-gis wala bokku leen ay aada wala ay culture kenn ki woyof ci kanam moroom mi ci des mu ne laa yas yaa ayuha allazina amano laa yasxar xawmin min xawmin ase an yakunu xayran minhum wala nisaun min nisaain ase an yakunna xayran minhunna bu kenn reetaan moroom mi bu kenn woyofal la sa moroom nekk ndax man naa am ki ngay woyofal li mu li ko koy xeebe moo la ko gëne mu nettali ñu ñi fi jaaroon ci ay buur seen ni ñu doon doxe ci wàllu racisme ak wàllu parparloo mu ne inna firawna la aalin fi l ard wa innahu la min al musrifin inna firawna ala fi l ard wa jaala ahlaha chiaan yastatifu taifatan minhum Firawna yàlla da ko may doole may ko pouvoir bu rëy waaye ci biir loolu ñi nekkoon ci agronome mu def leen ay catégorie ñii mu jël leen favoriser leen ñii mu woyofal leen euh, loolu nag politique la boo xam ne ba léegi mi ngi mi ngi continuer di wéy xaj na façon bi ñu koy defee mooy wuute ndax ci tolluwaay jamono waaye loola ba léegi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi wéy mu nettali ñu moom suñu borom ci alquran wax ne laa tajidu xawman yuminuuna billahi wal yawmil axiri yuwaaddoona man xaada allaha wa rasulahu walaw kaanu aabaahum aw abnaahum aw ixwaanahum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihim al wa ayyadahum bi ruuhin minhu mu nettali ñu ñi nga xam ne ñoom parparloo gi ñuy wax deñ nañ ci nga xam ne ngëm si xëj na ci seen xol ba lépp lu mën a doon tiim nañ ko nga xam ne ngëm lañ jiital ci lu mën a doon amatuñ parparloo ci seen digganteeg donte sax ñii ñu bokkal ndey bàyyi lañu wala ñu seeni i bàyyi wala seeni maam bu ñu bokkul ak ñoom lii nga xam ne mooy li ñu li fi yonent bi indi ngëm gi du du duñ leen jàpp ay mbokk kon loolu yëpp ay kilo yoo xam ne alxuraan àdduna ci indi ko leeral ko ñu ngi nuyu suñu wayjur yu ak si léegi muy sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke mu sëriñ Saalif ñu ngi koy nuyu moom itam di ko dalal mu nettali moom alxuraan ba tey ci diggante parparloo ci diine ak diine mu ne yahood yi nee nañ nasaraan yi nekkuñu ci dara waaye nasaraan yi itam ni ni ni yahood yi nekkuñu ci dara wa qaalat ilyahuudu laysat ilnasaara ala cheyin wa qaalat ilnasaara laysat ilyahuudu ala cheyin suñu ñëwee ci sunna muy njàngalem yonent bi alayhi salaatu yonent bi ci xajjatul wadaa def na benn xutba xutba boo xam ne xutba bu yaatu la bu bu bu matale waaye ci biir xutba bi wax na ci ne yaa ayuha inna rabbakum waahid laa fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin wala li abyad ala aswad wala li aswad ala abyad illa bi taqwa annaas illa bi taqwa annaasu min aadama wa aadamu min turab nee na yéen nit ñi yàlla mi leen sàkk benn yàlla la yéen a ko bokk kon amul arab lu muy gënee ku dul arab amul ku dul arab lu muy gënee arab amul ku weex lu muy gëne ku ñuul amul ku ñuul lu muy gëne ku weex lu dul ci ragal yàlla mu ne yéen nit ñi yéen ñëpp seen maam mooy aadama te aadama ci suuf lañ ko bindee kon yéen ñëpp yéen a bokk benn cosaan amul gënante loolu yonente bi jëfe ko ci kanam saxaaba yi dund kook ñoom ba mu sixañ ci seen xol tàmbale ko ci bilaal mi nga xam ne dafa nekkoon nit ku ñuul dëkkoon Éthiopie bi mu ñëwee mu féetale ko lu tedd ci diine muy nodd di ko nodd loo ci biir nodd gi am na ñu koy saboote ndax bu wax ashhadu an laa ilaaha illallah si as lay wax ñu di ko ci reetaan mu ne siinu bilaal indallaahi chiin siinam googu ngeen koy reetaane de bu dee fa yàlla moom nam na nam na mu war a mel la ko yàlla jàppe te mooy Chine ki ñuy wax Salmanul Farisi nekk Perse bi ab xeex amee mu laaj ko xalaat mu digal ko ne ko da ngay gas am ngaare mu wër kër gi bu ko defee ñoom bu ñu agsee duñ mën a dugg te Perse la waaye jëfandikoo de xalaatam hmm. boole ko ci biir jullit ñi ba boole ko ci maanaam ci ci ay conseillers kon foofu mi ngi wane ne waaso taxawul suñu xoolee moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu dellu ba tey di wax ne laysa minna man daa ila asabiyatin man qaatala ala asabiyatin wa laysa minna man maata ala asabiyatin mu ne kuy woote ak parparloo bokkul ci nun kuy xeex ci principe bu parparloo nekkul ci nun bokkul ci nun koo xam ne nekk nga ci loola ba faatu bokkutoo ci nun loolu xadis bi Abu Daawuda moo ko nettali waaye am na ci ñoo xam ne dañuy dañ koy dañ am ci gis dañ koy jam waaye ala kulli alin maanaam moom nekk na loo xam ne mooy li wér hadis benn pàcc bi mooy loolu ñaareelu pàcc bi mu ne inna allaha awxa ilayya an tawaadahu xata laa yafxara ahadun ala ahadin wala yabxa mu ne yàlla yit moom yonent bi mooy wax mu ne yàlla wax na ma ne ma na ngeen di toroxlu dee leen wàcce seen bopp ci suuf ba kenn di bañ a sa bopp ci kaw moroomam loolu moom lu wér la amul luñ ci laam-laamee hadis boobu mi ngi ci sahiha muslim am na benn xeex boo xam ne dafa am ay ay ay coow yu am diggante muhaajiroon yi ak lansaar yi muhaajiroon yi mooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak yonent bi ñëw ñëw Médine euh, lansaar yi mooy ñi ñi ko teeru léegi nag ñoom ñaar ñooñu ñaari camp yooyu am ci ñu ñu ñu jàppante kenn ki daal di yuuxu ne lansaar yi sama mbokki lansaar yi ñëw leen dimbale ma muhaajir bi it ne sama mbokki muhaajiroo ni ñëw leen dimbali ma coow ñoom ñëpp kenn ko nekk ñëw ñu xeex nara am yonent bi ne lii lu doon mu ni ñu ne ko dafa am benn muhaajir bu wéq benn moroomu lansaaram mu woo ay mbokkam ñu nar a xeex nga xam ne xeexu diggante ay ay ay tribu la yonent bi ne bàyyi leen loolu yi lu lu xesaw la maanaam lu salte la waaw buñ ko ci langage bi ñuy wax loolu parparloo bàyyi leen ko lu lu salte la baaxul waaw nga gis ne kon ci njàngale mi yonent bi parparloo feex na ko lu man feexe na ba ba ni fiy jógee amatul ci diggante jullit bi mu bàyyee bi mu bi mu bi mu bàyyee jullit ñi wuy ji borom moom suñu moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi mu fi bàyyi itam noonu lañu doon dunde kenn ku nekk fa nga nekk noonu nga doon dunde tàmbalee ko xulafaaw rachidoon yi am na benn ku ñëw Omar ibnu Laas nekkoon gouverneur Égypte Omar ibnu Laas dafa am benn bis ab course bu ñu doon def xam nga naar yi ñoo fonk course fas léegi doomam ak beneen beneen li ñu wax xipt copt lañ leen di wax ay xeer wu nekk foofu lañ ñu ab course bu doon def léegi copt bi raw doomi Omar Ibn Lance xam nga Omar Ibn mooy gouverneur bi bi ko rawee xale bi mer comme moom bàyyi mooy amirul mooy ni ba noppi mu di ko raw mu jël karawaas gi mu yoroon ci fas wi dóor ko xale bi mu doon kursoon ne ko da jëlal loolu muy muy mu jóge ci doomi ibnul karimay ni maanaam ñaari ñoo xam ne ñu noobul lañ ñoo leen jur moo ñoo la jox karawaas googu xale bi dem boole ko bàyyam bàyyam ñi wax ko Omar Ibn xam naa Omar Ibn As ni mu ko war a lijjantee xaw na yeex na wala yu mel noonu da daal lijjanti kuur foofu waa ji baayam dem Médine ci capital islam jamono boobu mooy Omar Ibn Xatab boobu mooy mu jàmbat ko li xew Omar dafa woolu Omar ak doom ji bañ ñëw mu woolu kooku ak doom ji mu karawaas yi bañ ñëw Omar jël karawaas gi jox ko xale biñ karawaase ni ko fayul mu fayu mu wax benn baat boo xam ne nag bu am solo la te mooy mata tastan bi doon naasa waxat waladatuhum ummahatuhum axraaran kañ ngeen di ja jël nit ñi di leen jàppe ay jaam te bi leen seen yaay di jur ñuy ay gor yu set wecc loolu loolu loolu kon mooy ñoom ni ñu doon dunde ni leen yonent bi yare ci wàllu kawe parparloo ak dundu musaawaat mooy égalité ak kenn ku nekk def sa bopp ni sa moroom ñu ñëw nag ci njàngaleem Cheikh Ahmadul Xadim mi nga xam ne moom itam mboolem li yonent bi doon jàngale moom daf ko jàngale ci dund ko maanaam ci ci ci tatbiq ko appliqué ko ci kaw terrain bi ñuy gis wax naa ne parparloo dana am ci diggante réew ak réew dana am ci diggante waaso ak waaso dana am ci diine waaye bu amee ci diine dana am ci biir diine ji ay ngiir ni ñuy par parparloo dana am itam ci tarixa yi dana am sax ba tey ci politique bi waaye dañ ci ñëw ci kanam waaye suñu xoolee bu njëkk bi te mooy am réew diggante réew ak réew sëriñ bi daa mel ni moom li ñuy wax ay frontière du ko xamul woon moom dafa jàpp ne yooyu yu yu yu tubaab yi sas la rek waaye doonul loo xam ne ci bu ñu delloo ci cëslaayu lislaam lu lu lu taxaw la lu ñuy ñuy sukkandiku keroog bi benn kilifa tubaab ñëwee di ko laaj tarixa murit siège social bi fan la nekk daf ko ne fu àdduna bi fu ay jullit nekk rek foofu siège social la ci murit bi mu ne ko membre yi ñan lañ mu ne ko fu ab jullit nekk rek ci membre yi nga bokk kon kooku amul frontière jéggi na kon wataniyatu kooku ñuy wax mosuñoo dégg itam ci mbindam mu tudd Sénégal baatu Sénégal pour asaawu ahlil ard ngay dégg wala yu mel na waaye moom jàppul ni ni gisin wi ñu gis ci ay réew ak ay diggante ay frontière ak yooyu moom gëmul woon loolu moom ay jullit dekk la gëmoon mu daan wax ne wala doo man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa ku ngeen gis gémmiñam di wax laa ilaha illa allah bu leen ko doon daan wax ne képp koo xam ne ab jullit la sa mbokk la soo xamee loo bokk ak moom nag sa bopp la moom la daan waxe moo tax kon Euh, wàllu loolu yi muy euh, réew ak réew moom noonu la ko jàppe woon amul frontière bu dee ci bu ñaareel bi te mooy wàllu waaso muy diggante ay mbokk walla yu mel noonu daf daan wax ne man bukkuma kenn dara kenn ku ne li nga baaxle laa bokk ak yow loolu wax na ko ba tàyyi wax na ko sëñ Mamadou Fadil ak ñi mu ko doon waxal ci jolof loolu kese bu siiw la loolu it daf ko li ci lii nga xam ne moom la ko yàlla may ni mu ko doon séddalee ndax danaa ci waxtaan ak mel ni mbokk boo seetloo su doon lim yor moom ci ay cadre waaso wala mbokk la ko doon séddale fi ne tarixa murit boo ko xaajoon soo ko xaajoon Euh, li ci ëpp ci ay taalibe seen sëriñ santul Mbàkke ñi ci ëpp li ci ëpp ci murid yi seen sëriñ santul Mbàkke kon su fekkonte la ne ci kaadaru waaso ak askan ci la doon séddalee kon Mbàkke Mbàkke yi ñooy ëppale ci taalibe yi loolu li benn mu ne mahat mahabbatiyal muxtaara sayidana xubbil magaani wal ahliina wal walada bëgg gi ma bëgg yonente bi ba connecté wu ci ba gisatuma lenn lu dul moom tax na bëgg ay kër wala ay doom wala ay njaboot ay amatuma soxla ci lenn lu dul bëgg yonente bi bu ko defee nag bëgg yonente bi li mu koy euh, indil su koy séddale itam ci kaadaru noonu rek la koy séddalee suñu xoolee ci bi ci dolliku mooy yéefar yi muy parparloo ci diggante diine ak diine nga xam ne dana ki jullit la kii loolu dëgg la jullit warul jàppee kenn kuy am mbokkam ku dul moroomu jullitam waaye nag bu fekkee nekk na nit yàlla bind ko muy am mbindeef am na loo war a sàmmante ak moom ci ay àq waraañi fii kulli xalqin xaqa man xalaqa bu nekk war nga xool yàlla mi ko bind moo tax moom sëñ bi ab yéefar sax daawul nangu ko ko jëw mas na koy waxtaan di di di di wax ak sëñ ma sëñ ma bàññi njaay moo ko nettali nee sëñ bi daf ne wattu leen de leen moytu walaan seen dàgga ak lakk seen dàgga ndax ne walaan walaan seen dàgga mooy jëw ab jullit soo ko dee jëw bu ëllëgee dañuy jël lu baax li nga am yow jox ko jël lu bonam jox la loolu mooy walaan nga xam ne day mel na nga jël sa lu baax yow di ko joxe mu ne jëw ab yéefar nag moom mooy lakk sa dàgg ndax jullit yéefar moom amul lu baax boo ko dee jëw bu ëllëgee lu bonam lépp dañ koy jël sippi la ko sëñ Masamba jub Sam wax nañ ne moo ko ne ah ñu ne mbàkki foofu xawoon nañ fee kii dañoo defoon ne jëw jëw yéefar du dara mu ne ah mos ngeen jàkkaarloo ba mos ngeen jàkkaarloo ba kon foofu la nekkoon ci diggante diine ak diine bu ñëwee ci ngir xam nga boo ñëwee ba ci diine ji da nga gis ñu naan kii imaam Malik la bokk fee imaamu euh, nangam la bokk yooyu yëpp itam sëñ bi daf ko tiiman daf ko kayo woon moom fexewoon na ba tënk ñépp ci genn nos ci benn buum ndax loolu mooy euh, nizaam ne yéen ñëpp tënku leen ci malikiya waaye nag teewul ngir yi ci des yëpp reconnaître na ko ngir yi ci des yëpp nangu nangu loon na leen jël seeni téere indi ko ci kër gi am na benn bis mu ne maam Thierno dafa bëgg mboolem ay matul arbaa yi seen téere yi ñu ñu ñu nekk ñu am bibliothèque bi ci kër gi nga xam ne maam Thierno dafa jël benn xaritum naaram yabal ko Égypte mu dem fa sonn na fa lool ba jënd téere yëpp indi ko euh, boole ko ko ay woy xamal ko ne ko li nga bëggoona a ngi nii euh, kon kooku euh, wàllu ngir amu ci frontière nee na aibati fi lfiqhi malikul ali wa shafii wal anafi wal anbali man samay kilifa ci ci ci ci fiq mooy ñeenti ngir yépp lay jëfandikoo kon moom amul amul frontière waaw bu fekkee ci wàllu tarixa la wér bi yëpp la daan joxe wér du tijaan wér du xaadir wér du euh, saasali euh, yëpp daf ko daan joxe wax nañ ma ne ma euh, yëpp daf ko jëloon jox ko maam Thierno nekk ko koo yéenewul ne ko ne ko ne ko na koy joxe wérdu ma xuus yi bi mu ko joxe daf ko ne koo yéenewul àjjana bu ko jox waaw nga xam ne kon wàllu tarixa itam amu ci amu ci par par parloo amul fu amu ci limite amu ci frontière nee na masaayix yi sayiduna al jilaani wa chajali maaw tijaani kon moom amul amul amul amul frontière ci